asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ Souleymane xam naa sa laytaay bi loolu mooy indi nga li nga xamante ni ku la déglu sax tu n'es pas tranquille parce que mënoo ko défendre ndax yow yaa indi hadis indi ko ci saxiixay ni téere bi nga xamante ni moom nga jàpp ni lu fa nekk wér na yow yaa ko wax doy loo téere yooyu ba li nga indi foofu wér na yow yaa wax ni yenente moo ne indi leen ma bindal leen li nga xamante ni su fekkente ni yéenaa ngi langaamoo loolu téyee ko du ngeen réer sama gannaaw yow yaa ko wax nga ne am nañu wax ni Omar moo ko wax kenn tuddeewu la ko fi kon gémmiñuy xasaw yooyu wax ci saxaaba yow ci nga bokk yaa tudd fi Omar kenn tudd fi Omar raziyatu yowmul xamis kenn musu koo fi waxtaane yaa wax ni tamit Omar lu mu jàpp ni mooy dëgg yenente bu mu ne quumu anni kon loolu dafa jàpp ni lu leen yenente war a wax yépp wax na leen ko yow Suleymaan yow yaa wax lool yaa wax ni Abdullah ibn Abbas buy wax raziyatu yowmul xamis bis boobu musiba bu gën a màgg mooy lu ñu tere yeneen te bindi yow yaa wax yooyu yëpp yow rek yow Suleymaan yow yaa nekk fii di daanu mais fi nga dem nii shabakatu minhaju sunna fi nga jëlee loolu xanaa xamoo ni gis naa fa gis naa ko mais boo koy jàng sax da ngay reetaan lu ne fang ci téere nga ne da koy dégg da koy défendre yéeme na boo ko déglu sa wax mooy contradiction bu mag kon ku la déglu nii loolu mooy yenente moo gën a comprendre Omar moo gën a comprendre wala saxaabam yi ko wër foofu ñoom ñoo gën a comprendre risala yenente ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fii yëkkati nga sahaaba waaye nga jël yëg yenente ko ci kaw daanel ko te ku daaneel yenente daaneel diine lislaam ma kaana li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna alxiyaratu min amrihim loolu alquran lii ñeelul way gëm yàlla bu jigéen ak góor yàlla dogal dara ñoom ñu am lu ñuy tànnal seeni bopp yaa indi sa hadis kenn indaalewu la ko ma aataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu yow yaa indi sa hadis aaya yu leer laa lay wax ni shabakati minhaju sunna bi nga dem foofu jëli foofu wahabi yu nay bindi ko wax joo xam ni bopp ak génn sax doo ko xam nga yaakaar ni fu ngay jëm duma xaw ma ko di copier indi yow yaa ne doo oustaz internet waaye lii de internet nga indi tu es contradictoire avec toi-même raziyatu yowmul xamis boroom xam-xam yi ko indi bare na trop du Buxaari ak Muslim rek waaye li nga indi nga ne doyloo léegi nañ ko doyloo boroom xam-xam yi ñu jàngit ko ndax yenente war na wax ni indi leen ma lii ma bindi leen mu am ñu interposé ndax loolu lu war la yenente xamuloon ni li mu war jottali jottali na ko yépp yeneen te xamuloon ko waaye ñela ñi ko tiim ñoo ko gën a xam ni lu mu war a jottali jottali na ko léegi jaratu ko ñoom ñoo gën a xam loolu yenente bi yaakaar naa ku gëme ñoom xasaw mooy jël yenente suufeel ko yëkkati sahaaba mi ku gëme ñoom xasaw xolom ñuul xelam tilim ak suuf ak diw mooy ñëw taxaw naan da ngay défendre sahaba ci kaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba pare nga laytaayee ko pour kenn bu ma intervenir nga yaakaar ne ay dof ñoo nekk ci biir group bi wala ay ignorant la amuñu xam-xam yeneen te dina ñëw wax keneen ñëw baatoom nekk ci kaw laa tarfawu aswaatakum fawka sawti nabi seeni baat bu ñu yéeg ci kaw baatu yeneen wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum am baadin an tahbata amalakum bu leen jël yenn kaddu ngeen jubal ko ci moom riwaaya bi gis nañ ko leer na naññ mais yow nga ne yow muhaami da ngay jël muhaami sahaba yi nga dangay jël sahaba yi nga yëkkati leen waaye nga suul yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana mandu si sa côté yow da nga nekk nit ku mandu Souleymane doo rus loolu doo ragal yàlla nga xam ni yenente yàlla yónniwul benn sahaaba yenente la yónni bu fekkente ni respect la ci yenente la war a tàmbale du keneen loolu yéemi na loolu message loolu mooy message wahabi yu nay toujours loolu la ñuy layee moo tax imaamu ali nee na takallamu tu'rafu almaru maxbuun taxta lisaanihi nawaasi bi borom xol yu ñuul yi nga xamante ni dañoo jël ahlul bayt def leen aadaa waaye yenente bi sax suufeel ko ñeel saxaaba mi ñoom ñoo nekk charru xalqillah parce que lu ko waral sulhu hudaybiya sulhu hudaybiya ndax imaamu ali dafa bañoon est-ce que dafa contredire dafa ne loxom bu bindi woon muhammadun rasulullah diis na ci moom pour mu effacer ko waaye yenente bu mu ñëwee pour bindi ko est-ce que aliyun interposé na xam nga fi ni dafa ne ñëw leen indi leen ma bindal leen li nga xamante ni du ngeen réer sama gannaaw abadan innahu la yahjur wala galabahul waja yahjur mooy ki nga xamante ni tag saggoona feebar bi tax na du dafa am loo xam ni leeraloo ko dafa am loo xam ni da nga ko desal fi nga dem jëli am na loo dag jeexaloo goo ko wahabi yu nay nee na yeneen tey bu ñuy feebar seeni làmmeñ day diis duñu mën a seetal kàddu ñu ne lool moo tax nanguñu ko te nga indi woon lool waaye dem nga foofu nga bàyyi nga bàyyi foo loolu ñukk nga ñëw nga indi yu la arrangé te yow nga ne doo internet du nekk sa oustaz mukk xam nga yow booy booy indi sa leçon fii da nga koy def ci yaru ak teggin nga layal sa mbokk jullit koo xam ne Abu Hurayra nga utal ko lay mais Suleymaan nan lay dugg ci groupe te moom hadis bu mu ko jël Buxaari ak Muslim la jël ñëw ak ay saaga ak ay yu bon te ñépp xam nañu lan mooy wajhatu nazar Suleymaan naasibi bu bon la chi a la bañ a dégg ci noppam ñépp xam nañ ko mais na ñëw mu jàngale raziyatu yowmul xamis na ko utal comme dem na ci sabakatu minhaju sunna sabaka wahabiya yi mu indi te indaalewul lu bare ay waaxu waaxu léeboon léppoon yu fa nekk kenn xamul nu mu toll mais na ñëw mu wax sérieusement mais lay taayal ay ay ay kadduwam ay waxam ay wax yu juuno ak ay wax yu bon loolu dafa war kan la gémme ñoom gën a xasaw kundung ni ku wax yenente bi e, e, e, waruñu koo jox mu bind ndax saxaaba yi ñoo gën a xam ni yenente lu mu war a jottali jottali na ko kon donc ban gis nga lii kenn mënu koo layal du respect ñun duñu dugg ci ay mawduwaat yooyu mais mawdu boo dugg rek pour wax nit ñi lu bon dinañu am luñ la delloo sa bu njëkk bi ak lu mujjee ñëw contradiction la gannaaw yow nee nga ibnu abbas moo ne musiba bu ma gën a màgg raziyatu yowmul xamis mooy musiba yowmul xamis nee na lu gën a rëy mooy lu ñu gaar yenente pour mu bindi ko nga ñëw ñëwaat ni aliyun bind na ko nga tuddee li nga war a tuddee est-ce loolu du contradiction ci yow est-ce du contradiction ci yow yaa indi riwaayaat yi yëpp yaa jël qadiya bi teg ko ci kaw taabal bi boroom xam-xam yi bind ko kon wax yu bon yooyu ngay wax yëpp wax yu bon yooyu ngay wax wax yu juune yooyu yëpp boroom xam-xam yooyu ko bind ñooma ngay wax noonu ndax kenn waxu ko fi yow yaa ko fi indi yaa indi seeni riwaaya yow yaa saaga tamit yow yaa wax ay wax yu metti wax yu diis olay nga wax ko ci yar ak teggin waaye waxoo ko ci yar ak teggin fii nag ku fi wax noo waxee dañ lay tontu nag waaw boo ñëwee ak yaru ñu ànd ak yow yaru ak yow boo ñëwee ak yaradeku deku noonu la ñuy waxee ak yow pour nga comprendre boo ñëwee ak soxor ñu soxor ak yow kon booy wax waxal ci xam-xam nga yem ci yow littéraire nga waaye sa xel du màcc loolu dafa am solo voilà Souleymane wàcce naa xadiis yi comme indi nga Ahmad bun Hanbal indi nga Bukhari indi nga Muslim mbokk yi mu ngi nii nañu jàng na xadis fu ngeen di xam ni Souleymane nit ku dëng la nit la koo xam ni du nitu jàmm nit la koo xam ni moom eh, lu ko ñor rek mooy créer fawda même bu fekkente ni ni ñaa ngi dal moom Souleymane dina créer fawda xadis bu mu ngi nii ci sahihu buxaari kitaabul ilm baabu kitaabatul ilm hadis cent quatorze yahya bun suleyman qaala haddasani ibnu wahbin qaala axbarani yunus an ibni shihabin an abdullahi ibni abdullahi an ibni abbasin qaala neen lamma stadda bin nabii wajo bés bi nga xamante ni metti bi na ci yenente bi xaala nee na tuuni tuuni bi kitaabin indi leen téere bindikaay aktubu lakum kitaaban ma bindel leen laa tudillu baadihi du ngeen réer sama gannaaw kaala omarin omar nee na buxaari moo wax lii ndax da nga ko mu wax ko ci groupe bi su fekkente ni du naafeq Souleymane parce que wax na ba tudd yi moo tax ma abordé ci inna nabiya ni ki yenente sallallahu alayhi wa sallam xalabahul waja métit bi moo ko ëpp doole wa indana kitaab allahi am nañu téere yàlla xasbuna te téere yàlla boobu doy nañu kon Omar moo gën a xam yenente luy téere yàlla xasbuna fa in ixtalafu wa kasura laxat nee na foofu lañu ñu werente nee na coow li bare ci yenente bi xaala quumu an ni jóg leen ci man Suleymaan firi na ni yenente wax na leen ko ci la leen wax ni jóg leen ci man wala yambaxi indi tanazo kenn warul di xuloo ci man fa xaraja ibn abbas ibn abbas daal di génne yaqulu mooy wax ne inna raziyata niki musiba kullu raziya lu gën a màgg musiba bu màgg musiba yépp maa haala lu dugg lu gaar diggante yenente bi wa bayna kitaabihi ak li mu bëgg a bindi mbokk yi loolu ci buxaar yi la nekk léegi suleymaan su fekkente ni wax ju bon jooju mu ngi koy jubal mu ne ci ay la ci wute waaye mu ngi koy wax buxaar yi lii buxaar yee ko wax moo ngi ni fu mu jëm laa jëm indi ko waaye man demuma ci shabaka bi waaye lu nekk buxaar yi exactement moom laa nit lool bu ci jógee nga ne nga ñëw saxiixu muslim gis nga buxaar indi na ko ñaata yoon boo ñëwee ci saxiixu Buxaari juróom ñetti riwaaya la benn laa ci firi waaye nga ñëw ci muslim tamit di nga gis ni muslim tamit indi na riwaaya bi muslim tamit indi na ko donk ñu xool ñaata yoon la ko euh, sahihu muslim indi bon buñ demee ci sahihu muslim indi na ko ñetti yoon ci kitaabul wasiya baabu tarkul wasiya liman laysa lahu shay'un yuusa fihi boo demee foofu da nga koy fekk riwaaya bi 1637 foofu nga koy fekk ci muslim tamit ñetti yoon la waaye may indi ci benn hadis seize trente sept nee na haddathana said ibnu mansour wa qutayba ibnu saidin wa abubakr ibnu shayba wa omar wa omar amruwin amruwin naqid wallafdu li saidin nee na wax ju ñëw ci eh, wax bi ci saidin na qaalu nee na haddathana sufyan an sulayman al ahwal an said ibnu jubayrin qaala qaala ibnu abbasin ibnu abbas nee na yowmul xamis bésu xamis alxamis boobu wama yowmul xamis lan mooy bésu alxamis boobu ndax nu mu réyee summa baka gannaaw loolu la ibnu abbas jooy hatta balla damaahu lhasa bee rongoñomi tooyal ay xeer fa qultu ma ne ko ya ibn abbas yow ibn abbas wa ma yawmul xamis lan mooy yawmul xamis qaala naan nee na istad istadda bi rasulillahi wajo nee na metti bi sonnal na yenente fa qaala mu wax da mu daal di wax ne tuuni aktubu lakum indi leen ma bindel leen kitaaban téere laa tudillu baadi du ngeen réer sama gannaaw fatanaza'u ñu daal di werante wa ma yambagi inda nabiyin inda nabiyin tanaza te werante warul ci yenente wa qaalu ñu daldi wax wa ma sha'nuhu lan moo ko dal ahjar maanaam léegi fi ne ni feebar bi jàpp na ko ba xamul may wax istafhamuhu comprendre leen ko feebar bi moo ko téye mais boo demee ci shabaka bu Souleymane dem foofu ñoom dañu ne istafhamu bi loolu mooy yenente yi bu fekkente ni dañoo feebar seeni lameñ dafay téye xolal lu bon lu ñuy tegtal yenente bi mu ne daawuni bàyyi leen ma falladi ana fiihi man lu ma ci li ma nekk xayrun moo uusikum bi salaasin nee na maa ngi leen di digle ñett uxrijul mushrikiina na nangeen génnee mushrikuuna yi min jaziratil arab ci dëkku arab yi wa ujiizu alwafdi yanhu ma kunt bi naxwi ma kuntu ujiizu xam dégg nga na ngeen dalal gan qaala nee na wa sakata ani thalith waaye mu noppi ci ñetteel bi waxu ko de moom ibnu abbas aw qaalaha walla wax na ko ku koy nettali nee na walla noppi na ci walla waxu ko fa fa ansaytuha fàttee naa ko qaala abu ishaqa ibrahim abu ishaq ibrahima nee na haddathana al hasan bun bushrin qaala haddatna sufyaan sufyaan bi hada al kon ñetteel bi ah nee na ko ku koy nettali kon lii moo nekk ci muslim léegi ñu dem ci ahmad comme nee na fent na wax joo xam ni ay duur wahabi yu nay la ndax si seeni sabaka la dem kon suleyman asbaha talibul google al gannaaw bu mu waxoon ni moom du du nekk taalibe google abadan buñ njëkkee foofu mbokk yi nañu dem ci beneen mooy raziyatu yowmul xamis adadu riwaya xamsa ci musnade ahmad foofu la ñëw kon mbokk yi dama nekkoon ci téléphone xadiisu ahmad bun hambal moo ngi nii gis ngeen ni li ma koy waxee nii sax moo gën a leer nu Souleymane di ko wax parce que Souleymane da doon lëntal nangoowul firi hadis sax nu mu ñëwee exactement boo demee ci musnad bun ahmad indi na ko juróomi yoon min musnad bani hashim bidayatu musnad abdullah ibnu abbas radiallahu anhu hadis dix-neuf حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم خالد ابن أبي نجيه سمع سميع سعيد بن جبير يقول موي وحنان قال ابن عباس ابن عباس نينا يوم الخميس بس يوم الخميس وما يوم الخميس lan mooy yowmul xamis summa baka mu daal di jooy hatta balla damaa bee nu mu tuddati e, rongo ñoom tooy tooyal wa qaala mu wax marratan dumuahul hasa mu wax beneen yoon ni ba mu tooyal xeer qul ñu daldi di wax yaa abal abbas yaa yow pape wa ma yowmul xamis lan mooy yowmul xamis xaala nee istadda bi rasulillahi waja yenente feebar bi mu méttee ci moom fa xaala mu ne tuuni aktubu lakum indil leen ma bindel leen kitaaban ab mbindi laa tudillu baadahu abadan du ngeen réer sama gannaaw mukk fa tanaaza'u ñu daal di werante wala yambaxi inda nabiyin tanaazo te kenn warul werante ci yenente fa qaalu ñu daldi wax ma sha'nuhu uxjira lan mooy mbiram waaye boo déggee hijraan mooy koo xam ni tàggoona sagam munul wax fa qaala sufyaan sufyaan daal di wax yax ni hadha xam ngeen loolu koo xam ni dafay wax waaye xamul lu muy wax istafham istafahamuhu na ngeen ko comprendre Suleymaan shabaka bu mu dem nee na loolu mooy yeneen tey bu ñu feebar seeni lammeñ yi dañuy daal di dàmm ci seeni gémmeñ loolu la wahabi yu nay wax te moom foofu la jëm fa zahabu ñu daal di dem yuiduuna alayhi ñuy dellu ci moom fa qaala ñu daal mu daal di wax duuni bàyyi ma falladi ana fii man ci li ma nekk xayru mimma tad'uuni ilayhi moo gën ci li ngeen may woo amara bi salaasin mu daal di digle ñett wa kaala sufyaanu marratan awsa bi salaasin qaala uxruju almushrikina min jazirati al arab wa ajiizu alwafda bi nahwi ma kuntu ujiizu wa sakata saidun an salim fala adri sakata anha amdan xaw ma ndax moo ko tey mu noppi ci ci ñetteel bi aw nasiyaha walla fateen wa qaala sufyan marratan wa amma an yakuna tarakaha aw nasiyaha wa imma an yakuna tarakaha aw nasiyaha imma mu fattee ko mbaa daf ko bàyyi kon loolu am na solo trop donc Souleymane lii moo nekk foofu li nga wax nag nga ne Ahmad nee na Aliyun bindi na ko bind boobu war nga ko indi kenn warul di duural ki nga xamante ni e, nit la simple sax fekk waxut nga ne man moo wax kon loolu du dégg. ok xam ngeen ni ci groupe bi. lépp loo xam ni dafay indi féewaloo dafay yàq diggante dafay yàq mbokk du ñun ñoo ko fii indi donc yéen a am seeni njar yéen a xam li ngeen ko njaree ay wax yu nga xamante ni moo nekk seeni téere yéen koy indi ñun ñun ñoo koy indi kon lépp loo xam ni mun nañu mengoo ak yéen ànd ci ak yéen ñun dinañ ko wax waaye lépp loo xam ni dafay gaañ seeni machair du ñun ñoo ko fi indi toujours bu ngeen di seetlu waaye kan moo koy indi loolu mooy Souleymane ngalawaay su fekkente ni seeni boroom xam-xam am na lu ñu wax seeni biiri téere Souleymane bëgg koo defar na ñëw mu defar ko loolu ñun njaruñu ko kon bu boobaa moom moo xam lu ñuy njar ci téere boobu mu xam nu mu koy naanee ñun suñu yoon newul ci loola waaye luy indi fawda ci groupe bi wax dëgg yàlla du ñun ñoo ko fiy indi bu ngeen xoolee ba certain temps Souleymane mooy indi raziyatu yowmul xamis bi benn amu su ko dugal ci biir groupe bi première fois ñu waxtaane ko léegi mu ñu ngi ci deuxième année Maodo fay moo indi waxu tubaab bi nga xamante ni orientaliste la mu indi vidéo dugal ko fii mu nekk débat débat bu posa posé moom dugg fa parce que moom nitu fitna la bu fa duggoon rek day nekk fitna kon donc wax na ay aaya alquran par rapport ak hadis bi yàlla daf ñu tëkku ñun ñi nga xamante ni ñooy umma muhammad ni yenente bi nañ ko déggal waaye mu jàngal ñu nan lañuy ñuy woo ak yenente bu ñu nekkee ak moom sax bu ñu yëkkati baat te loolu la ñu gis ci riwaaya bi Suleymaan indi du ñun ñoo ko indi de Suleymaan moo ko indi loolu lañu gis ci riwaaya bi yëkkati kawam baat ba mu xaddi mu ne leen jóg leen fii kenn warul coow ci yeneen rawatina mu ngi tëdd feebar est-ce loolu cër la jàng leen ci suuratu xujiraat lan la yàlla yedd waaye yàlla moo ñu ne ma kaana li muminin wala mumina ida kada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al xiyaratu min amrihim yàlla bu dogalee ak yeneentem yéen amu leen ci benn soit da ngeen war a wax samaan wa taan bu leen tànn li nga xamante ni loolu ngeen ki léegi Suleymaan nee na yi ñoo tànn waaye ñoom ñoo gën a xam risaala sax yenente yeneen te jottalil na yëpp waaye sahaaba yi seeni wax moo gën a wér waaye waxu yeneen dañ ko war a sandi ci suuf ci ku ko déglu bu baax a baax a baax donc su fekkente ni lii mu ngi seeni téere Suleymaan moo koy indi mais toujours dafay wax chia yi yéen yépp kuy nga ni dangay ngay jub sa diggante ak yàlla ngay wax ndax question yi chi ay ñoo koy pose ci groupe bi donc lu ñëw seeni téere bu fekkente ni yéen a koy defar defar leen ko waaye du ngeen ñu po imposé mukk lu nekk seen biiri téere ñun indiwuñu ko lu ñu mën a ànd si jàmm ñu ànd si si jàmm loo xam ni mënuñu ci ànd ak jàmm kenn ku ne comme sëriñ boobu lu mu wax mooy Cheikh géey loo xam ni weesu na weesu nañ ko ba pare kenn ku ne mu xaar a ah, lu koy xaar ci kanam diggante wu mag borom loolu moo gën waaye su fekkente ni Souleymane yii muy def nii dafa leb lu muy fay vraiment ngàllawaay bu mu indi fawda ci groupe bi ndax ay waxtaanu yu am solo waxtaanu xam-xam moo fi nekk ak kilifa yi comme moom dafa yaradeku nag bu ñëwee ci groupe lu ne dina ko jéem pour taal fi na ñun nekkuñu ci logique boobu ndax ñun ñoo ñun indiwuñu raziyatu yowmul xamis waaye raziyatu yowmul xamis nag su fekkente ni sahabi bu mel ni ibnu abbas jooy na ba tooyal xeer yi nekk ci suuf loolu du lu ndaw te yenente sax nee na kenn warul coow te fekk yaa ngi ci yenente bi la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum an an tahbata amalakum ko bu leen jël ay kaddu wax ko comme yéen ñenn ñi ni ñuy waxe seeni biir bu leen ko wax yenente bi respecté leen ko jox leen ko cër ah Souleymane moo ko indi waxe ko fii su fi mas sa jib rek su fekkente ni ab lawumu mu ngi foofu nañ ko delloo ci Sulay Mouhamad Lamine sama wax bu audio bu mujj bu ma bëgg eh, li ma bëgg ma bëgg a jeexal loolu mooy Souleymane lii de xam naa lu bees la ci Souleymane ci deux mille dix bi waaye am nañu jiitu xam loolu ay ata ata ata ata at am nañu ko ci jiitu Suleymaan am nañu ko ci jiitu ci wax jooje depuis ay ata ata at cinquante ans après comme moom lu bees la ci moom mun na ko indi fii ay boroom xam-xam ñu ngi fii ñu màndu ñi nga xamante ni ñoo ko gën a xam qadiya bi waay su fekkente ni ñun duñ ko indi waay su fekkente ni ab ni moo indi qadiya bi teg ko mu jàpp ne Omar maasum la e mu jàpp ne Omar du maasum mun naa juum kon juumte la kon ñun amaluñu Omar benn een dañ koy ñaanal yàlla jéggal ko ci njuumte boobu ndax du maasum kenn ku ne mën naa juum ci dundam waaye su fekkente ni ki ko indi nag naan dangay ngay défendre Omar ci kaw nit ñi di ñu fekk nag fii nii lan mooy réalité dinañ ko wax nit ñi waaw ndax ñun indiwuñu ko duñ ko indi xam nañ ko lu yàgg waaye luy nga xamante ni mooy tax jullit yi mën a nekk benn loolu moo ñu gën a yitte fekkente ni lu bees la ci moom mu koy indi pour taaj ko ci kanam nit ñi mu ne dañ da koy défendre ñun dina ñu fi fekk waaye su fekkente ni jàpp nañ ni njuumte la ndax du maasuum yal ko yàlla Eh, yal na ko yàlla eh, nu mu tuddati yal na ko yàlla eh, jéggal ci loola dégg nga yal na ko yàlla jéggal ci loola ñun amuñu benn problème ak sahaab yi mais lii qadiya la boo xam ni jaat min kutubikum alladi jaa bihi kuwa Suleymaane benn chiites dugu dugalu ko fi waxtaanewu ko fi kon donc tout responsabilité moom moo koy jël moom moo koy jël kon donc dépendre loolu aaya alquran ñu ngi ni bu ñu jàngal ay discipline ci kanam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama muy discipline boo xam ne alquran a ko jàngal bu hadis ñëwee lu waroo ak loolu ñun duñu cautionné loolu ndax sahaab yi nu mu rey rëy rëy rëy yenenta ko gën a rëy kon défendre yenente mooy prioritaire ci ñun kon donc lépp li nga xamante ni waxu sahaab yi la waroona ak waxu yenente ñun waxu yenente la ñuy jël sahaabi du maasuum te du moom la yàlla yonni ci ñun yenente moom la ñu yàlla yonni bu ñu dee dañuy ne dañuy laaj eh, wama ma rabbuka wama kitaabuka wama kiblatuka wama nabiyuka kenn du laaj kenn ñu laaj mukk wama sahaabiyuka kon lii laa mën a yem sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi attahirin allahuma salli ala muhammad al muhammad asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sama papa ma ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar di la jox sa wàccuwaay di rafetlu say kàddu yaakaar naa ku yaramam dawul sax bu ko déggee rek yaramam war na daw waaye groupe bi de léegi ma mat fi ñaari at waaye borom groupe bi sax moo ma fi dugal ndax kuréelu jullit bu ne mu ngi fi waaye bu ma fi duggee maa ngi sant yàlla bu baax a baax bu ma duggee fii lu ñu bëgg a xam ci ci ay lépp laaj nañ ma ko te jàngale naa ko fii alhamdulillah waaye boobu kii may waxantel nii su fekkente ni mu ngi ci groupe bi tamit daawu fi wax waaye fi ma ko xam loolu mooy group chia yi foofu dafa saaga imaamu Khomeini benn taalibe bàyyi génnee ko ci groupe bi guddi googu la fi dugg mu ne est-ce que chia yi ñu ngi fii ma commencé saaga boobu ba léegi groupe bi fitna moo fi nekk bu ñu nekkee sax di waxtaan waxtaan yu am solo sax xamal ni bu ñëwee day posé ni dañuy saaga saxaaba yi mujj bi day song ci kaw chia yi foofu laa koy tong waaye bu ñëwee wax ci maxaasin ci saxaaba yi loolu yoonu kenn newu ci parce que saxaaba yi ñun bu ñu jotee ci diine ci ñoom lañ ko jot dont ñoom neen am na ay mbir yoo xam ne dugg na seen diggante waroo mais du ñun ñoo war a lijjante loolu du ñun ñoo war a lijjante loolu kon donc lu gën ci ñun mooy lu rafet ñun ñépp ñen nañu bokk kalimatu tawhid wa tawhidul kalima waaye ñu défendre l'islam ak fu ñu mant bokk loolu moo gën a am solo xiiroo bi ak ngaayoo bi waaye moom gis nga saa yoo déggee coow saa yoo déggee ceew ci groupe bi moom moo ko fi indi ci njalbeen sax bu ñëwee day am ay ñu koy tàccul mais ñooñu dem nañu ba xam ni kii nitu fitna la waaw nitu fitna la waaye ak a mu ñëw wax fadailu abou bacrin fadailu omar fadailu ousmane fadailu aliyin ba yazid sax mu loolu yoonu kenn nekku fi ah mais bu attaqué chia yi da fekk chia ñu ngi fi dañu ne as sukutu ala cheyin ridan bu mbir ñëwee ñu wax ko sa kaw nga noppi rek loolu mooy def nga ko dinañu défendre sunu bopp waaye moom seytaane la nitu fitna la waaye amul kersa amul personnalité daa mën a fen gisoo lu mu wax ci ummahatul muminina tuumaal ci chia ay gis nga texte bu ma dugal boroom xam-xam chia yi ñoo yelloo sax ñu wax leneen waaye ba ci saxaaba yi boo xoolee ci téere ahlu sunna fu ñu leen jamee foofu cinq cent quatre-vingt-treize riwaaya la mais doo déggee ci ay dinaan nii dañuy saaga waaye tey nag fii lañ tey la ñëwee fu mu gën a ñaawee waaw yéemi na samaatu cheikh abou bakrin maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar ngay xam ni kii yàlla rëbb na ko yow fi nga waxee déggul noonu de mais moom feneen lay waxe xam nga loolu nga loolu nga indi loolu ay wax la yoo xam ni ku intelligent war na ko déggee ci boppam moom moo indi riwaaya te riwaaya bi indiwu ko ci téere Chiha riwaaya yi mu indi ñetti téere yooyu laa indi moom nga dégloo noonu mooy Bukhari saxiix la Muslim saxiix la Musnad Ahmad bun Hanbal ñetti la présenté fi te nanguwu ko firi sax numu mu mais gis nga firi ko baat par baat loolu dafay wone ni su fekkente ni am na ñuy wax sahaaba yu bon ñoom lañu du ñu siyaa yi ndax lii nii mu koy jëli ci seeni téere te moom mënul indi benn audio sax ni am na benn chii boo xam ni indi na mawdu bi teg ko ci biir groupe bi walla am na lii la ci wax loolu dafa am solo trop waaye lu ibnu hajar wax rek ci assawaiqul muharraqa <coughs> loolu dong la société boo dem rek nga fekk leen foofu te ñoom du ñu bëgg a jàmm toujours dañuy bëgg a taal kii bu sañoon réew mi tàkk ndax fitna yoo xam ni un siècle avant nous wala des siècles avant nous loolu lay sulli fii ba pare daf koy tuumaal nit ñi jëli ko sa te yow yaa koy indi nga tuumaal ko ñeneen loolu mooy musiba ci moom waaw Muhammadul Amin moo tax mawduaat yi am xasaasiya noonu doo gis Yaxya Touré abadan yatatarraku ndax suñu boroom xam-xam yi dañu def ay fatwa naan lépp li nga xamante ni dafay kaañ xasaasiyaati naas bu leen ci faral di wax ndax yooyu ay mbir la yoo xam ni weesu na muy ci biir téere yi waaw dëgg la waaye jaru ko waaye lii nag Suleymaan moo ko indi jëli ko ci Bukhari ak Muslim ak Musnad Ahmad moom mi ko indi ba pare muy tuumaal ci chia yi bu ci tëddul chia ma ne ku ñëw fii di wax fadail benn sahaabi ci sahaaba yi xanaa ñu tàccul la ndax lu baax moom buñ koy wax nit ku na xadim mbaa nga bañ ko yow sax doo ku baax uskuru mahasina annas na ngeen wax lu rafet ci nit ñi lu ñu def te buleen leen jóg sa toujours di wuti seeni ñaawteef di ko wax waaye lii bu fekkente ni wax teef la ci saxaaba Suleymaan moo ko wax ndax moo ko moom moo ko fi teg loolu am na solo te Aboubacar Souleymane toog na fi mu ne Bukhari ak Muslim lépp lu fa nekk wér na waaw loolu la fi wax léegi nag Bukhari ak Muslim ak Musnad Ahmad léegi des na nit ñi ñëw laaj ko Souleymane léegi riwaaya bi yow yaa ko indi firi ko jëloo ko ci téere Chia de ci téere ahlu sunna nga ko jëli léegi lii xadiis foofu nga ko jël léegi nag su fekkente ne yëpp a ngi Buxaari looy def ak hadis bi xam nga chia indi ko Suleymaan moo jël jëli ko fan téere ahlu mu ñëw mu firi ko te nu mu ko firee noon la nekkee foofu de gis nga ne ma ko firee exactement baat par baat laa ko firi léegi soit mu ne hadis bi wér na soit mu ne hadis bi wérut soit mu attaqué sahabi wala mu attaqué Buxaari xam nga du nit ku intelligent yow ki nga xamante ni bañ nga ko déggoo mu wax ko déggoo mu def ko mais yow yaay jël ay mbot sa biir téere nga ñëw exposé ko mais nga jël loolu responsabiliser ko nga yennul ko par la force même dont waxu ko kooku nit ku intelligent du ko def sax waaw loolu jëfu faasiq la faasiq rek moo ko mën a def koo xam ni am na lu muy xaar Souleymane dafa am lu mu leb mu koy fay <laughs> gis nga bu waxee fii nii wahabi yu ne dañuy collecté ay kiyam yóbbu ko ci yeneen groupe yi suba rek boo demee yeneen group nga dégg ko foofu foofu ngay xam waa ji nu mu toll ko voilà abubakrin xolal li raziyatu yowmal xamis boo xoolee soixante trois riwaaya la buxaari huit moo fa nekk muslim trois fois la ñëw musnad ahmad cinq fois la ñëw kutubu nisaa yi cinq fois la ñëw kutubu xaysami trois fois la ñëw kutubu ibni kasir cinq fois la ñëw kutubu ibn saadin huit fois la fa ñëw kutubu abi yaali trois fois la fa ñëw kutubu sanaani fois la fa ñëw kutubu bayhaqi trois fois la ñëw kutubu abi awana trois fois la ñëw kutubu ibn al et ibn abil hadid al mu'tazali quatre fois la ñëw ibnu taymiya indi ko benn yoon ak yeneen téere yu wuute mu indi sept fois ça mu nekk soixante trois riwaaya ñu ñëw ci yëpp téere ahlu sunna la benn téere chia bokk ci kon boo xoolee téere yi day dem ba quatorze fois boo xoolee nombre riwaayaat yi benn bu ne nga calculer ñaata moo fa nekk mu nekk soixante-trois nombre riwaaya bi bu nekkee ci téere ci ay tamit tolloowul nii léegi Suleymaan lan lay jël di tuumaal si ay ci loola loolu yéeme na loolu mooy fàq déggantaan